salaamaaleykum mbokk internet di mardi 24 octobre 2023 ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram nag bokk na ci Pape Matar Sarr am nañu ay xabaar ci moom ndax démb bi këlëbam di jàkkaarloo ak Fulham yeggali wut boobee waxoon nañu leen ne dinañ leen ko toppal am nañu ca ay xibaar waaye ca Barcelone it am nañu fa ay xibaar ci seeni blessure yi nga xam ne moom la ñu am jamono ji laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatal gi nag ñoo ngi ñaan kuy gën ci page bi bi te abonné goo nga abonné bés cloche bi waaye képp ku ñuy toppit it ci tiktok bi li ñu lay ñaan moo di nga abonné ba noppi aimé vidéo bi abonnement bi ci tiktok bi nag yomb na plus boobu ngay gis boo ko laalee rek abonné nga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 ngay bëggante nga bëgg koo nopp ba ngeen dëppoo ci ay xalaat ak lépp su ngeen jokkoo incha allah yàlla may na ko ca xam-xam moom nag ay mbiram amul caaxaan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 képp ku jokkoo ak moom yal na sa ajo faju laata ñuy door xibaar yi nag ñu fàttali leen sunu tiktok bu bees bi ku ci abonné lien bi mu ngi ci commentaire yi da ngay dugg rek nga dem ca tiktok ba abonne tiktok boobee sax am na mbir yu doy waar yu ñu cay waajal ci coupe d'Afrique bii ñu dëgmal kon ñoo ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñuy topp ci youtube bi nga dem abonné ca tiktok ba. ñu door xibaar yi dooree ko ci waa jaraaf ñoom nag am nañu gan gu bees tàq gan gi mi ngi tudd Kassim Ouali moom ab milieu relais relais bu mën la muy def la ma nga woon ca Sonacos nekk ca Jurbel waaye kat jógee na ca club boobee wutali jaraaf jaraaf googee nag bu fa demee dina fa fekk magam mag ji mi ngi tudd Abdoulaye Oualy Kassim Oualy nag ma nga woon ca Sonacos kon nag bu demee ca jaraaf nekk ca Médina dina fa ànd ak magam di Abdoulaye Oualy ñu ànd doxal ci Ligue 1 bu Sénégal ñu jugee ci waa jaraaf ak seenu gan jël doomu Sénégal bi di Pape Matar Sarr démb clubam di Tottenham ak Fulham di ko gañee ñaari bal ci dara moom doomu Sénégal bi yéggali wut match boobee ndax ki leen di tàggat di Ange Postecoglou da koo génn ñépp nag li ñu jàppoon moo di ab blessure la waaye tàggat point sn nee na doomu Sénégal bi blessé wut laata match bi di jeex dafa xawoon sibbiru te ki koy tàggat ca Tottenham xamoon na ni moom mënul football quatre-vingt-dix minutes yépp li mu mën a football moo di benn waxtu moo tax bi ñu jongantee benn waxtu rek da ko woo génne ko waaye amul ab blessure kon nañu ko ñaanal si birum boobee gaaw bàyyi ko balaa yàgg muy Pape Matar xibaar boobu tàggat point sn ñoo ko xamle ñu jógee ci Pape Matar Sarr ak xibaaram bu neex jël doomu Sénégal bii di Habib Beye moom nag mooy tàggat club bu ñu naan Red Star nekk ca national bu France national nag mooy troisième division doomu Sénégal bi mag fay amal ay jaloore ndax saison bii ñu nekk li mu tàggat club boobee ci ay match mi ngi toll ci onze match coach Sénégal waa Red Star am na ca neuf victoire maanaam juróom-ñeenti ndam benn match nul ak benn défaite li ñu dugal ci ay bit mi ngi toll ci vingt et maanaam ñaar fukki bit ak benn dugal nañu ko ñoom li ñu leen dugal ci ay bit ci neuf la toll maanaam juróom-ñeenti bit lañ leen dugal jamono jii ñoo jël p ca troisième division bu France muy waar Red Star ànd ca ak Habib Beye ñoor mi nekk seen ginnaaw jël deuxième juróom-ñetti poñ moo dox seen diggante ak moom kon nag yoon wii mu jaar bu ca jógul 2 bi ak club boobee muy tàggat muy Red Star di Habib Beye nekk doomu Sénégal ci fàttali club boobee sax seen capitaine doomu Sénégal la muy Cheikh Ndoye nekkatul xale sax waaye foofee lay football ay jamono daan nañ ko woo ci équipe nationale bu Sénégal mooy capitaine u Red Star ñu jugee ci Habib Beye ak i jalooreem jël doomu Guinée Conakry bi tudd Serhou Guirassy moom nag clause bi ko bàyyi ca Stuttgart mi ngi toll ci dix-sept virgule cinq millions d'euros bu demee ba yegg ci weeru ñëw bëgg ko doomu Guinée bi bëgg club boobee su fekkee club bi ko bëgg jox nañu dix-sept virgule cinq millions d'euros waa Stuttgart mën nañu ko yóbbu ci seenub club mu doxal su fekkee tamit amul loolee bu ñu yeggee ci weeru join fekk mercato bu mag bi ubbi club ñëw bëgg ko su joxee loolu waa Stuttgart mën na ko jël ci club boobee ndax clause boobee moo ko fa bàyyi moom nag ndoorte saison bu baax la amal ak waa Stuttgart ndax football na huit match am quatorze but waaye jamono ji nag dafa am blessure xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci Serhou Guirassy dem ca waa Olympique bu Marseille ñoom nag seen ñaar ñii dañoo blessé woon waaye jamono ji wér nañu jeudi di alxemes Marseille day jongante Ligue Europa Athènes la ñuy jàkkaar lool match boobee bu dara soppeekul ñaar ñii mën nañu ca bokk muy Joaquim Correa ak Samuel Sigo ñoom ñaar wér nañu te match boobee mën nañu ca bokk bu ñu sukkandikoo ci la province ñu jugee ci waa Olympique bu Marseille ak seenu xibaar bu neex ca waa Paris xibaar bii tamit neex na ci waa Paris ndax seen gone gii nekk doomu France tudd Sayer Emery mi amoon blessure ba taxoon démb bokkul ca entraînement ba tey jii bi clubam di tàggatu ngir waajal dalal gi ñuy dalal suba AC Milan bokk na ca bam jeex kon bu dara soppeekuwul ci diggante bi Sayer Emery dina bokk ca match boobee doxal xibaar boobu nag waa Paris ñoo ko xam xamle ñu jugee ci waa Paris ak seenub xibaar bu neex jël ca Pacolic Lorient gi tudd Eli Junior saison bi ñu door ca Ligue 1 bu France mooy gone gi ci gën a xarañ am at yu néew yi mu am ñu koy wax révélation ndax gone gi kat ma ngay doxal ak waa saison bi ñu nekk dugal na ca trois buts amal ca deux passes décisives loole tax na nag ñaari club yi gën a mag ca Espagne ñoo ngi koy bàyyi xel muy Real de Madrid ak Barcelone ndax gone gi football am na lool yaakaar ci moom xibaar boobu RMC nekk ca France moo ko xam ñu jugee ci Elie Junior Kroupi xëccoo dem ca waa Manchester City ñoom nag seen xel dal na ci doomu Argentine bii di Julián Álvarez club yi ko bëgg nag bari nañu lool mën nañu ca lim Real de Madrid Barcelone ba ca Paris ak Bayern de Munich waaye loolee nag tiitalul waa sa City ñoom jàpp nañu ne doomu Argentine bi jógee koogul ci seenub club liñu ñu jàpp moo di dina fa toog ba ci kanam doxal xibaar boobu ESPN moo ko xamle ñu jógee ci Julián Álvarez ak waa Manchester City dem ñoom nag li ñu bëgg moo di xaatimal contrat définitivement Kepa ndax Kepa kat ba mu ñëwee ci seenu club ak tey jii mi ngi doxal ci fàttali Real de Madrid da koo àbb waaye moom jàmbaar la te mi ngi amal match yu baax waa Real nag li ñu bëgg moo di jënd ko mu kujjee ak Thibaut Courtois ku man rek taxaw ci kang yi te moom Kepa nag dàqul taxaw ci ginnaaw Courtois loole la relève boo le Kepa bëgg-bëggam moo di xaatim contrat ci Real de Madrid toog foofee doxal Relevo moo xamle xibaar boobu ñu jugee ci keppa ak waa Real de Madrid dem ca waa Barcelone ñoom nag suba Shakhtar Donetsk la ñuy dalal mu soxal troisième journée Ligue des Champions maanaam ñetteelu bëccëg jëm ci Ligue des Champions Barcelone nag blessure yi mu amoon woowu ca kenn blessure yooye mën nañu caa lim Robert Lewandowski Rafinha